ay discours yu am solo discours yoo xam ne comme ni ko déggee rek lépp day dellu si ci euh, ci lislaam niñ koy dundee fii ci Sénégal mooy euh, dal ak yar ak teggin ak xam-xam ak ragal yàlla loolu la ñu woote ak li nga xam ne moom mooy euh, dajale askan wi yëpp te taxawu leen loolu mooy li nga xam ne moom la sëñ Touba andi te kilifa diine yëpp ci loolu lañ tënku ci Sénégal jërëjëf. Sénégal dooleem alalam bu njëkk bu gën a fort mooy jàmm bi mooy dal bi maanaam lu ñuy woowee stabilité donc loolu foo faut ñu sàmmonteeg moom surtout nag ñu jëm ci ay élections présidentielles dañu war a fexe élections yooyu jaar yoon doon élections yu ubbeek may sénégalais yi ñu tànn koo xamante ni moo leen doy te loolu damay lancer appel ndax en tant que njiit njiitu mouvement euh, citoyen demain c'est maintenant ñun dañu ne citoyenneté moo war a jiitu ci lu nekk moo waral a lal ci lu ñuy woowee la politique